ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar wax ji duma ko guddal élection législative la ñu jëm ay député la tànn ñun nag il nous faut simplement un choix yan xeetu député la ñu bëgg est-ce que bëgg député yu yor ay faux waa wala déet est-ce bëgg député yu yor ay passeport diplomatique di ko jaay est-ce que loolu lañu bëgg est-ce que dañoo bëgg góor jigéen homosexualité pédophilie zoophilie ak lépp dañoo bëgg mu raw ci réew mi lii nag boo koy wax da leen di métti mais ñoom ñoo nekk def la promotion des homosexuels ñun dañoo bëgg yokk daan yi ñuy teg jigéen loolu lañu bëgg ñu ne. góor jigéen du fi am. góor jigéen du fi am. góor jigéen du fi am. góor jigéen du fi am. mais bu ngeen waxee loolu. su ma gaay su ma gaay su ma gaay mais bu ngeen waxee loolu. yéen a wax naan kon troisième mandat du fi am. parce que Macky nee na. Macky nee na. dégg nga fii. li ñu sàccoon ci xaalis yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dinañ ko def élection législative yii. pourquoi proposer le troisième mandat. di ngeen ko nangoon de. élection yi nag moom damay wax lenn. lu gaaw lay doon. huit liste moo am. mais lu gaaw lay doon. ñu ne la ko laal léegi fii ci Thiès yéen a doon fii ba ne. jëndee pour. Ngoundiane. Ndiéyène Sirakh. dëkk yooyu yëpp fu mu ci mën di doon fu mu ci mën di doon. 17 heures 17 heures kon 17 heures na affaire yi leer mais